noo ngi siari kilifa gi Cheikh Sidi muhtar yalla yalla yagal ko te weral ko katanal ko bam li beug liggeel seigne touba mu ko nam ko beug liggeey nongi nongi nongi noo ndokel tay nuyu imam ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé diiné ji lepp rafet na yalla yalla dëgëral ko te jappalé ko noo nuyu kilifa yépp xana rek dellu siwaar rek nañ ko daan defé ginaaw nu ndono war di waxtaan toujours suñu diiné waxtane sunu aduna ndax ñaar yépp a ci bokk wabtaqi fi ma allah dar al akhirata wala tansa nasibaka min ad dunya waya fa ansin kama ahsana allah ilayk dama al akhiram da caa bok waaye aduna nak la koy wajale waaye waajtaay wi nak na rafet ba bu deme ca yàlla lam ci sentone mu am ko non la la ko yàlla sante kon jëf ju bax rek mo am solo wa man ahsanu xawlan mimman daha ila allah wa amila salihan waxaale innani minal muslimin ki gën ci àdduna daal mooy ki man ab jullit la te boo jëfoo jëf ja dëppook jëf jullit kon war na nuy waxtaan di soññante te kenn bañ a xeeb lii ndax waxtu woo fi jógee ba déwénati jataay buñ lay soññee ci yàlla nga di ko déglu te yàllay kese ji lu jafee gis la kon noo ngi dellu ci waxtaan wi waxtaan wi nag mën naa ni rek ci ñetti xaaj rek lañ koy def benn bi mooy ana lislaam bi fu mu tey ci bitim réew mooy benn bi te bu ma waxee bitim réew nag waxaale naa ci tubaab yi nga xam ni moom ñi def benn dank àndandoo ngir xeex diine ana fuñ ci toll ana fuñ toll ci diine ci Sénégal gii nga xam ne ay tariixaa ko waaye téewul am na yeneeni i gaay yu dugg si ñoo xam ne ñoom itam bu seen pexe jooyee foofu tarixa nekk da nga fa jóge ana fuñ toll ci loolu bi ci toppaat mooy suñ dëkk bii nga xam ne mooy murit gi Tuubaa moom bu ñu ko waxee wax nañ murit gi rek nag ndax mooy lépp nun ana fuñ ci taxawee ana ñu yore baatub dëkk bi ñoom ban taxawaay lañ taxaw ci jàppale sëriñ bi ci dëkkam bii ba li bëggoon mën a am te loolu bu ma ko waxee wax naa ñi nga xam ne ñoo yore wàllu bi waaye waxaale naa itam sëriñ si nga xam ne ñoo yore wàllu diine ji ndax ñoom ñaar ñoo war a àndandoo taxaw taxawul sëriñ bi dëkk bi bali sëriñ bi bëgg ci dëkk bi maanaam bu munta am rek am na ci ku bàyyi wàllam bi ci toppaat mooy mbirum politique bi nga xam ne danañ sànni ay kàddu kàddu yi dana ci am lu sensé tey waaye li ko sensé itam da ngeen xam lan la ndax lenn lu ñuy wax te di ko nës nësal wala lu ko di ko nëbbu du kon adduna bi de jullit yi mën nañ milliard ak genn wàll waaye ñoo gën a tuumaraakit ci àdduna bi nag ñoom lañ gën a bundu xataal ñoom lañ gën a gis ñoom lañ gën a ciblé ñoom la ñuy complot ñoom la ñuy xeex fu ñu mën nekk ci àdduna bi bàgg nañ ci sax li la sa lislaam sant sax boo ko defee am problème boo yore sikkim bu rëy am nga jafe-jafe soo yoree mbubb mu xaw a gàtt am nga problème yow daal loo def rek lu dul sol ab karawaat costume soo ko defee yow dañ la xoolaat boo duggee ci avion sax dañ lay moytu naan kii ab terroriste la te loolu mënoon nañoo bañ a dal ndax doole jaa ngi fi mbooloo maa ngi fi xam-xam baa ngi fi am-am baa ngi fi te loolu mooy doxal àdduna kon suñ munta doxal suñ diine ji am na lu xew lu xew mooy olof day wax ne ku mënut bawut lu yàq ko yow ma ne déedéet ki man ta defut kay lu yaq mooma ki man ta defut ko kay lu yaq mom te yàlla dafa waxoon ne wa ahidu lahum mastata'tu min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bi adu wallahi wa adu wajal len sen bop ci lépp luy tax senum non du len du len ñeme jox nañu jumtu kay itam wala tanasahu fa tafsalu wa tasabarihukum neena won bayilu woon ba xex bi ndax bu ngeen ko defee da ngeen perdal seen seen seeni bien da ngeen perdal seeni kàttan waxtasimu bi hablillaahi jamian wala tafarraqu waay waay jàpp leen ci buumu yàlla gi def bent bu leen tàggalikoo loolu lépp wax na ko de inna haasi ummatukum ummatan waahidatan wa ana ummatun waahidatan wa ana rabbukum fa'buduni waaye ñu lànk wa taqattoo amruhum baynahum wa kullun ilaynaa raaji'uun de yépp yàlla wax nanu ko nu bañ lu nu ko teg nag mooy ñàkk àndandoo ak ñàkk kilifa te sëñ Tuubaa wax na ne fa kullu man adima sayxan mursida fa sayxuwa saytaanu ay su gis nga képp ko amul kilifa saytaan ay jàpp sa sa nos doon sa kilifa jullit yi nag dañoo manqué kilifa dëgg la kenn ku ne am nga sa kilifa ak bopp waaye jullit yi nag amuñ kilifa gu leen boole nag ndax nanguwuñ ko Makka ak Madina de foofa la kilifteef gi waroon a jógee ndax fa la diina ji jógee Arabie saoudite moo fa nekk saa bu ñu defee waxtaan dañuy defee ne nun danoo contre Arabie saoudite contre run ko danoo bëggoon mu taxaw taxawaay bi mu war a taxaw taxawaay bii Amérique taxaw ci Israël nga xam ne boo ko laalee mu daal di jóg nee na teggil sa loxo taxawaay bu toll noonu la waroon a taxaw ci adduna bi moom Arabie saoudite ku laal ab jullit mu la teggil sa loxo ndax na mate na ko am amam mate na ko jullit yi mate nañ ko mante deful loolu deful loolu tey fu dara nekk di di yëngu ci adduna bi moom mag moom Arabie saoudite bi nga xam ne moo moo waroon aar loxo ma nga fa nekk ci xeex boobee kero ba muy tàmbali ci yeman waxoon naa leen fii ne sumb na xeex boo xam ne bii xeex bi dana ko coûter cher jullit yëpp nag lay coûter cher ndax fii ne gis ngeen ko ñaataat boobu lu mat juróomi at te bi mu koy tàmbali arab yëpp laa daloon ak seen doole yi dal ci menum réew juróomi at mënaloo leen dara alal ji yàqu na si ñàkk sécurité am na fi mu ne kuy aji ku nekk ci xott neen ci neen nga taxaw ndax nag réew moo xam ne yéen a ngi xeex juróomi at mënuloo ko dara nit ñi jóge ci àll ba di aj si te mu mën a jël ay bomb di ko taxaw ca ca ca frontière di la ko sànni xam nga loolu dara wóoru ci te loolu ma woon naa ñàkk taxawaay bi mu taxaw ci Syrie boobu taxawaay ma woon naa ñàkk taxawaay bi mu taxaw ci ci Palestine ma woon naa ñàkk taxawaay bi mu taxaw ci Égypte ma woon naa ñàkk taxawaay bii mu taxaw ci Iran taxaw ko ba ba ba bu mujj bii nag mu taxaw ko ci Qatar ci Qatar nga xamni fi ni ñi ci problème bi ñu ambar goko muy seen mbokum julit té àndandoo woon démb ak bëkk té te nak ambar go bobu nak dama bëgg ngeen bayyi ci xel ndax man luy bëgg ñew ñëw leen ko alerte ndax daaw fi la leen waxon ne amna ku ñuy wax Trump de ci amerique mi ngi ci suuf de ñaan leen yalla bu mu faru waxon nañ ko fi daaw de ne leen Trump ñaan leen yalla bu mu faru ñu bari naan serigne bi daal limi wax lu mu doon lu suñu yoon ci Trump waye bu mu fa bu mu la yo ko yëk di ñaata doomi senegal la daal di likkati delloo si leen fii tey te bàyyeegut ñaata réew jullit lañ leen moyatuma leen ngeen tàbbi Amérique ñaata la fa waajal jàpp leen bëgg leen a kon la ma doon wax kon luy bëgg a ñëw daa leen mi ngi bëgg a kon Trump yàlla yàlla trompe ko moom itam kon te loolu lu mat a bàyyi xel la ndax gis nga Qatar gi mu mu song nii ah Saoudite gis nga complot bi ñu def ni lu bon lay bëgg jur te da ngeen ko yëgi gis nga Sénégal maa ngi ñaan président bi taxaway bu mu ci taxaw maa ngi ñaan mu arrière ci dama bëgg mu taxaw taxawayu defare waaye bu mu taxaw taxawaayu farfarloo parce que beneen pôle mooy bëgg juddu gis nga Qatar googu ngay gis noonu réew mu ndaw la mu bari alal wante gis nga turki mi ngi ci wetam turki mi ngi koy jéem a jàppale gis nga Iran mi ngi ci wetam gis nga riis yi mi ngi ci wetam gis nga siin mi ngi ci wetam te France nga taxaw fee nag daan di leen di leen xool te Amérique ci Amérique mi ngi ci genn wàll gee gis nga bu ñu leen séparé ba pare nun julli rek la ñuy rey fu waay mën a nekk da nga ko yëkk sam néeg te yoon woowu lañu aw kon noo ngi wax Arabie saoudite mu dellu gannaaw ci loolu réew yi koy jàppale ci loolu nañ arrière dellu gannaaw xam ne lii baaxut te day Amérique mi nga xam ne day Amérique mi nga xam ne day mo nek ci àddina bi yor dolem bëkki dem gis nga Trump caay-caay gi def yépp téwut Arabie saoudite la njëkk dem parce que xamne néna nag la wo xamne du du fer nag fer la motax fer la dañuy rat rek dina gis nga ko jaxase na ko bokki julitam yépp ta tay digënté Iran ak Arabie saoudite nañ fi ñaan jamm parce que li ñuy yóotu lonti ni bu amé ñun ñëpp ko yëgalu kon yalla ñu yalla sutural yalla ñu yalla jappalé yalla nu yalla aar yalla yalla dëgëral l'islam kon nanti ci baye xel bax te ñepp yalla ñi ñaan su ngeen gisee jamono yi ci gannaaw bi France di waté ma waxon ne na ngeen ñaan ba na ngeen ñaan ba Marie ma nu ko waxeeti Marie Le Pen may leen ñaan leen Marie Le Pen bu mu yegg de yéen a ngi toog tëdd yi nelaw nak waye gis nga Marie Le Pen mom bu yegge walaay fi nga nek senegal fi nga jëk yegg parce que say bu bon la bo xamne ne bañ gi diine du ko neub bëkk dem dem na Irak kep bëgg a gis mufti bi ñu ne ko da ngay muur sa bopp bi mu ne muur boppam gi jàll na ko dagg voyage yi ji bi France kooku bu yéegee senegal gee koy njëkk yëg li tax ma di ko wax sax ñu bari duñ ko xam waaye nañ ci bàyyi xel bu baax ndokk yàlla bi mu yéegu te yàlla bu mu yéeg ku mel ni moom it yàlla bu mu yéeg bi Sénégal gii diine ji sell na fi de bëgg nañ ko de yaakaar nañ ko de ñëpp a ngi ciy sonn kenn ku nekk bëgg nga lu baax wante daa mel ne yëf yi ci ay màggal ak i gàmmu ak ay cant ak ay daayiraake siyaare daa mel ne ci lañ yemare lislaam ji parce que mënaguñ ko paase nag mënaguñoo paase gàmmu màggal siyaare def sa cant foofu daal fi lañ yemale diine ji bañ amee indépendance ba léegi diine ji mënut a weesu fii bii ji mënut a weesu fii mënuñoo fexe ba kilifa yi yore ngànk diine jii daje daje wax ak président bi wax ak assemblée bi ñu defal leen ay institut boo xam ne bii institut bi boo lislaam a koy moom ba bu ëllëgee kenn leen sarax kenn leen dimbale kenn leen may dañuy am loo xam ne bii loi yi ñoo leen ko mayal seen bopp waaye fi ne li coow li bari bari dañuy maslante ne waaye amuñ amuñ benn cir boo xam ne bi ab loi jox na leen comme nag président bi mi ngi def lu baax di tabax ay kër yi diine di àggale ay jàkka di dimbale doomu aadama yi nañ ci boole wax ko ne na leen jàppale nag ci loi yi bañ am loi boo xam ne bii loi bi moo leen di encadré ba kenn ku nekk xam li nga doon fi ne xalifa yi fi nekk yépp dañuy maslante ak ñoom waaye amuñ loi bu leen cadré nag ab député de am na lu ko aar ab ministère amna ko président amna ko conseil sax am ko mais génn kilifa diine go xamné gi am nga fo sukkandiku lu may ki fi nek kay moy dem ba xamné li réalité moy mooy kenn mënu la fee bàyyi ñuy wax ak yow way bu ko neexon bañ xaw déngé li ma xam ne bu ko neexon bañ nak bo gisee ma wax la ko mooy xëy na sax taxul may wax waaye da nga imaginer tay su fekkoon ne France Marine Le Pen moom mu dafa dafa dafa gagné président bu mëna nek Sénégal. su ko nee teggi solo ko ci diine ji dana ko tegg ndax Sénégal mënta mënta France àndu ci da ngay xol koku bu gañe woon tey bu gañe tay fu kilifa ne diine nek dang ko dang ko reccu ndax dana ko ayé lepp lu muy def ci diine ji ndax abdou loi amul ben texte bu ko baye te loolu nak dafa mata baye xel bu baax waye nek fi rek di xëccoo ko xuloo rek man sama kilifa gën sa kilifa man mourid la sama sama suñu tuwa du sama rom man ab tiyaan la ñun nangam ki nangam ki khadir la nangam ki nang yoyu dal li fek bayyi wuñu ko noteel yii am du dañ mukk ci àdduna te dañ ko war a weesu nag Cheikh Sidi Muxtaar nag dox na ci jéego yu rëy yàlla na ko yàlla fayal te yàlla nga ko ciy defal ndam nag kon nañ ko bàyyi xel bu baax xam ne loo demee ni mënta am de day am te dañ koy waajal kon nañ daje waxtaan seet mu ñuy bokk ci réew mii bokk ci constitution bi am seen seen i àq i droit diina ji am lu muy tekki waaye quatre-vingt-quinze pour cent soo laajee dara ñu ne dafa am cinq pour cent yu fi nekk moo tax mënuñu ko may te ñoom nag ku ci am quatre-vingt-dix-neuf virgule virgule quatre vingt dix pour cent gagné loolu sëñ bi loolu lu mat a xalaat la te di ko xolle man nag ay xel laay waxal ulul albaab bi ñi am xel tey xalaat laay waxal loolu dañ ko bàyyi xel ndax day ñëw bi ci toppaat nag mooy sunu dëkk bii dëkk bi di Touba yi waxoon naa leen ne boroom ak bëgg dëkk bi ak bëgg dëkk bi addunaam yépp dëkk bi la fu masaa nekk rek ilaa Touba rek leer Daaru Salaam ilaa Touba rek boo masaa jógee ne ko Touba la jóge sax day bàyyi lim def mu doon jàpp lépp xoolaat la ba mag ñi dañ daan àgg ci su lay def loo dara sax booy wax danga nga naan danga nga naan da ko jeñ ko mu jëm Touba mu ne akasa jeñ ko mu jëm Touba rek boo ko waxee mu ne akasa ba ba mu liggéey yàlla ba wàcc ab liggéey ñëw dëkk seeg noonu fii nun ñu ñëw fekk si ko fi indiwaale suñuy melokaan indiwaale suñuy jikko fekk fi njabootu sëriñ Tuubaa gi ñu yaatal kenn ku nekk am nga sëb sëriñ man ngaa yàpp sëriñub jàmbur waaye yeewoo sëb sëriñ moom fi ne koo gis muy wax sëriñub jàmbur lay wax waaye du wax boppam kon kenn yëbul sa kilifa bi ñu leen fekk see nag kon kenn ku nekk war ngaa jéem a roy sa kilifa xool yoon wa ñuy jaar ñu jaar ca Cheikh Sidi Muxtaar de bi ñu dugg koor bi ñu dugg koor xam nga dégg ngeen mu ne leen suukari koor yi baax na waaye nañ ko def xaalis am na ñu ci dégg dégg nu bon wante loolu la war wax gis nga nun danoo am contrat ak sëriñ bi sunu alal sunu bakkan sunu doole sunu waxtu sunu temps sunu xel sunu man-man lépp noo ko jox sëñ bi te kenn laaj ñu ñu ko suñ toogee ba léegi nag murid bo gis bu sëñ bi santane nan ah xama nga xaaral ma dem barkelu ci way barkelu loy barkelu yow yëfi jàmbur ga yor mu laaj ko nan naan ñu dem barkelu yi ñu ñak bop sëñ bi kan ngay barkelu yow ya wax ne ya joxe sa bop yow ak li ci aju sëriñ bi soxla nga da ah, damay dem barkelu ci ñëw xam ngay lolou du daal de bëgg demul dama am waa joo bi patron la mi may deg so dee ci mbolo bi sa way sa way nekku ci waye yor alal ju du jeex di bai fal ab sëriñam yor martes bo xam bi ak puus bu tak la mom mu yor lu mat juroom ñaari auto di dox mané ko do dara da ngay tiaxat dong yow sa sëriñ baa ngi nii amul oto ba mu war nga yor juroom ñaari auto garé ko fi mëno ko sax jox sëriñ bi benn mu diko doxé doxe mu mu dem ne ma dara ko def xam nga lu mu defé da dem laaj sëriñ bi oto ba dor ko jox benen mané ko bon yowin ku ka Baay laaj sëriñ bi oto buñ magat ba dor ko jox benen xam nga ko ko te xam naa mi ci mbooloo bi xam naa bu ma génnee sax waaye na boy bo léegi murit gi loolu mooy problème bi problème bi mooy dañ dul déglu sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla fayal màggal gu mag gi xam nga moom li mu lay wax dala koy junj da ci dul jaar daan ne infaq al infaq al infaq mooy lan mooy dépense ca alal ci yoonu yàlla wax na ko ñetti yoon junj boobu doy na mooy gaa yi doxu leen gaa yi doxu leen gaa yi doxu leen leen wax ak coppi ko nga seigne sëñ dafa waxone ne joxe bi da jitu laaj kon buñ toge ba legi sëriñ bi am ay ay ay ay ay sembu yum sembu ci jumaa ji sémb ko ci Touba sembu ko dakaru sembu ko ci mourid ji nga war ko jox alal ji mu def ko ci joxoto ngay gaddu ngay gaddu goro su sugar daan damay barke lo koy de boko de ñu ko sanni cialo ngorub sugar lu man ha ah, lu dama dara sëriñ bi da war a joxe góor su suukar ba noppi joxe sa addiya ji nun ñii fi nekk de bu ñu waxantee dëgg kenn ku ci nekk seetal sa bopp bañ ko jógee fii daaw ba ren jox sëriñ bi ana def ci yoon wi ana def ci sa bopp ana loo def ci sa njaboot ma ne ku ci nataar sa bopp xam ne doxoo de li bakkan bi laaj te sëriñ bee ko moom ak li sëriñ bi laaj soo ko nattalee ak li ngay jox bakkan bi ak li ngay jox sëriñ bi xam ne doxoo sëriñ bi nag ma de nee naa ko sëriñ bi looloo baax moom daal loo soxla wax nu ko buñ ko difut danoo lànk bu boobaa sa jaan wàcc na yow daal bul ñu yërëm loo soxla wax nu ko rek noo ko wax noo ko garanti noo noo ko jaayante nun kon na ngeen góorgóorluwaat baax murit gi xam ne yàqkat yaa ngi ñëw yàqkat yaa ngi ñëw ah léegi nag am na ñoo xam ne ci murit gii lañ bokk wante ci li ñuy xëy ak li ñuy gontu lépp mooy lu tax sëñ Tuubaa mii liggéeyam bi du réussir ay wax yu bon yoo xam ne kenn su ko dégg naan naan naan na diw ne yàlla daa ñëw su sëñ Tuubaa nee yàlla daa ñëw sukk ci kanamam sëñ Tuubaa nee na moo bind moo moo moo bind yàlla wax yu bon yoo xam ne boo ko déggee da ngay defee ne waa ji day defar fekk déedéet daa bëgga a may buntu ñu bañ sëñ Tuubaa ñu am yoon te bu ko taalibe yi waxoon rek talib bu ko ci wax mom dañ lay fekk bantal la mom ba duutoo ko waxati waye nak ko xamni ki war nga dem ba man mom dekk bi rek di wax loolu luñ la manal am ma ko mom de waje togon ci bant ba di ko gor de mom xamna bu santul jóobit bu da naka sori wut ak sëriñ bobu de mom xamna bu bant bi dammee rek day yëkk daanu mbir mo xam ci ngay tedd ñu dila teral da nga judd fekk ñu defar ko ba baax ñu jox la ci teraga yu toll nonu jappale borom lu may di wax lu ko te kat andi jafé jafé ndax gis nga wahabi yone ñi fi nek nga xamne dañuy xex dañuy xex di te tariixa yi te jóge Arabie Saoudite bin nañ ci lune nan gis nga mouride yi li leen doon wax nan leen ay xeram lañu ñuy jaamu gëmuñ yàlla gis ngeen seen wax ji nangam ak nangam way lu benn way wax bo xam da réer kep ak gone go xam da xamul dara te yow nga dëkk fi xam li xew way balgal suko sukkandiku ci lolu nga dem laaj waaye fi ne wax nañ ci lu bon lu ne nee ñu nun nun duñ ay julit gis ngeen wax ji mu wax ni ci internet bi nangam ak nangam way way tooñ lay Sëriñ Tuubaa waaye sant nañ sëñ Muntaxa bi nga xamee ni jóg na ci taxaw ba jàpp ñu ñooñu tuubloo leen de jàpp naa ne dootuñ ko defati daaw de bañ ko defee ka ko defoon de daaw fii laa ko jéebaane woon waaye noo ngi sant si bas moom Cheikh Abdou Khadir ba ko sëñ bi yëgee jox ko ndigal la daal di jàpp jog jog jànkoonteeg mbir ma jàpp leen wax leen lam leen di wax ca saasa lañ daal di wàññeeku tuub delluwaat cig njub tey jàpp naa ne dootuñ ko def kon moom it noo ngi koy sant ndax sant gi koy sant tam mooy baatu murid yi mu yor mënoon na koo jaay bu ko jaayoon tam dañuy perte rek ndax sëriñ bi neen yaay mooy sa mooy làmmiñam mooy bëtam mooy tànkam waaye kenn déggagut nag baat boobu mu yor mu def ci mbaa mu dindi ci ndax nun yoyor suñu nopp nag tey xool yàlla na ko yàlla sant gërëmal jàppale ko ba mu am ngërëmal sëriñ bi ab ab sëñ Abdou Samad moom sëñ soy bu dañ koy sant ndax dafa am fan yi ci gannaaw concours alxuraan bu ñu def mal ca Malaisie téeméeri réew la ak ñeent fukki réew ñoo fa daje woon di jogante ci alxuraan léegi nag ka jël ñaareel ba maam jaara la tudd maam jaara ngoom dëkk Touba gii ci àdduna bépp moo jël moo moo jël deuxième bi te sëñ Touba nag dafa waxoon ne rafaanil qur'ana rafaan xafadaa man saa ahoo taxaddumi fan xafadaa sëñ Touba nee ne alquran yëkkati na ma ba sama yëkkati gii ma yëkkati comme neexul rek mooy sa a yow kon ku yëkkati alquran noonu murid yëpp jullit yëpp waaye murid yi rawati nañ nag rawati nañ nag ñoom sëñ bi ba mu ko yëgee lam def daf maa mooy daal di jël ñaari billet Makka jox leen ñoom ñaari gone ka jël premier ak ka jël teg ca ñaari million ne leen nag dem leen Makka te ñëw ak lam ca dolli ma ne ko noonu la ma neexee nag bu ñu waxee jëm ci alxuraan ku bokk Sëriñ Tuubaa waroo xaar gannaaw bi sax ñu bari toppaat nañ ci loolu rafetlu nañ ko lool kon yàlla na ko yàlla jàppale dëkk bi nag maire bi nga xam ne moo fi ne ak chef du yi maa ngi leen di woo ñu jàppale sëriñ bi jàppale sëriñ bi nag mooy lépp mbooleem lu ñuy aaye mi ci biir dëkk bii luñ fiy aaye rek mi ngi ci biir dëkk bi ñu di ko jaay mbaa ñu di ko fi def léegi nag loolu mën naa dañ ni muy dañee mooy sëriñ bi daal séddale dëkk bi ay xaaj jël na dëkk bi jox ko sëñ siidi mu teg ko ci loxol kii ko yor jël na jàkka yaa diine jox ko sëñ muntaxaa jël na daara alxuraan yi jox ko maam Mor sëñ fallu jël na liggéey bi joxe ko daaru xuddoos sëriñ bi def na li war a léegi nag ñi yore dëkk bi ñoo war a liggéey liggéey bi nag mooy dëkk bi nañ ko nañ nañ ko rëddaat seet quartier yi quartier bu nekk ñu seet fam tàmbale ak fam yem seet quartier bi kan moo ko fi def kan moo tudd tur wi kan mooy chef de quartier bi fu mu jóge woon ndax yar nañ ko ndax am nañ ko am na xam-xam ndax ab taalibe la xool ko ba li sëñ Tuubaa bëgg ci moom mu mate ko nga ñu ñu jox ko ko ne ko tàmbaleel fii di liggéeyal sëñ bi bayam fii su ko defee moom lu ko ca jaaxal mu dem wax ko chef du village sax mu wax ko maire bi bu leen jaaxale ñu wax ko sëñ Sidi ñu wax ko sëñ Cheikh Cheikh Sidi Moukhtar ñu réglé ko bu ko defee quartier boobee nga xam ne tudd nañ ko jàkka yi nekk ci biir ñu xam ñan lañ ndax am na fi jàkka yoo xam ne masjidu diraar lañ jàkka yu bon lañ jàkka yu bon jàkka yu bon mooy jàkka yoo xam ne ci maanaam da ngay tàggale jullit yi def ñaari xaaj ñetti xaaj te buñ ko fay def kenn day mel ni kenn amul sañ-sañ wax ci su fekkoon ne nag maire bi def na loolu bala faa kenn def jàkka délégué quartier bi dana ko yëg daara yi bala faa kenn samp daara daañu xam daara ji jan la mboolem yi ngay dégg yépp ñu ko fi daara yi ñu ko fi indi feneen lañ jóge ñëw ci dëkk bii xéewal gi bar rek ñu samp seen daara def leen neex te lépp Sëñ Tuubaa lañ koy adressé daayira yi dëkk koñ boo dem téeméeri daayira fa ngeen bañ ku leen yilif dong ñenn ñi dañoo bañ ku leen yilif ñenn ñi dañoo bëgg daraja ñenn ñi dañoo bëgg a alal ja ñenn ñi dañ ko bëgg a politique noonu lañ koy def kenn ku nekk boo nekk ci daayira ba wala ci mbooloo yaa nga jëkk ci génn bersa yëf wet ga léegi nag bu fekkoon ne dégg nañ ko ci yoon balaa loolu am danañ ko xam nga xam ne quartier bu ne chef de quartier bi dañ koy xam mooy kan waaye comme neex rek dajale sa mbooloo mën a fay lempo rek ne chef de quartier laa ñu jox la nga dem rëq-rëq yi looloo ko feen te dëgg-dëgg rek lay tudd comme neex samp jàkka looloo ko feen comme neex samp daara looloo ko fee indi ku neex sampab daayira looloo ko fee kon nañ jàppale sëriñ bi bu ñëw ñu àndandoo ci quartier bala faa kenn def dara dañ ko xam waaye fii nag quartier boo dem ka fay tuddoo ak chef de quartier imaam yaag sëñ daara yaag sëriñ sa fa nekk ñooy ay noonam kon nañ dimbale sëriñ bi kilifay diine yi nañ dimbale sëriñ bi nañ dimbale sëriñ bi ci yar dongo yi wax leen dëgg te bañ leen a wan seen bopp wan leen yàlla wan leen yonente bi wan leen sëriñ bi nag suñ ko defee de li sëriñ bi bëggoon dana am te dana yomb noo ngi sant nag bu baax nag académie minanu daaru bu daarul minan li seen taxawaay ci koor bi bu muxaddamatul xatma bi nekk ci jumaa ji muassatul wafa bi nekk daaru muxti xuratul ayn bu kri chony bu safinatul amaan bu sëñ mët loo xuddaamul xaddiim ak nag ci seen taxawaay yooyu ñu taxaw ci koor gi ba weddil sëñ tuubaa tuuma yooyu ñu ko doon teg mboolem tuuma juñ tegoon sëñ Touba di ko wax ci internet yi seen seen conférence yi ñu def ci weer yuy teggil la sëñ Touba tuuma jooju murid yëpp sant nañ leen ci ak nag daayira bu ñuy wax tuubaa ca kanam Touba ca kanam nag dama ci taxaw tuuti ndax ñoom dañoo wax ne dañoo fas yéene dootuñu xaar ab maire dootuñu xaar ab chef du dootuñu xaar ay addiya dañoo bëgg a dajaleel sëñ Touba alal joo xam ne bi lépp lu sëñ bi soxlaati rek danaan def leen leen rek ñu def xalaat bi nag rafet na lool ay kilifaa ko séq yàlla yàlla jàpp leen bañ mottali ko wante nag wante nag mbir yomb na de surtout alal nekk ci te de li ma leen di wax mooy murid yëpp seen xol ànd na ci waaye gis nga bis bu ngeen wooree kenn dootu fi taxawale lu taxaw man bul fa ni bañ ko defee dama leen wax na de ma lawul foofu seen li ngeen def baax na de waaye gis nga seen daayira bi bis bu daanoo kenn dootu fi taxawal du taxaw te ñuy tukki xam nañ li ma leen wax bañ koy taxawal mu dox de ci lañ tabax hôpital bi ci lañ def lépp waaye gis nga de bis ñu demee ba ba ba yooyu xew ca de tey mi ngi nii mënatuñ dara Tuubaa ca kanam it murid yaa ngi xëpp seen bët yeen xool te danañ leen jàppale murid yi de ku liggéeyal sëñ Tuubaa ñu ñu ñu fay la moom loolu moom leer na ma moom na ngeen dox te dox doxin wu leer te teg ci dëgg su ngeen ko tegut ci dëgg de noonu de nii ñu amee ñemeeg taxaw fii di ko wax nit ñi ñi lañ amee ñemewaat ak ne leen gaa yi lekk nañ xaalis bi taloo mi ngi suñ kanam kon góorgóor leen bu baax yëf yaa ngi noonu nag nañ takkaat suñu ndigg jàppale sëriñ bi jàpp sëriñ bi te jàppale ko léegi nag li ma ciy jeexale bi ngi gudd mooy mbirum politique bi am na beneen taxawaay bu ma ci taxaw waaye danaa taxaw li danaa wax li tax ma taxawee ko parce que Macky Sall mii saabu bu ne dama leen daan wax ne macc Sall de man ju xaw ma ci moom ak bon ndax li tax xaw ma ci moom ak bon mooy dégg gu moom wax dara dégg mu mu def ko waaye nag amul entour bu baax de moom amul ñu koy jàppale ndax nit ñi sonn nañu te it ñi war a sës ci ñoom dimbalewuñu leen nit nag bu fekkee ne mënoo àgg ci kilifa te ki jaar sa diggante moom dimbalewu la sooy xas dëgg-dëgg kilifa ga dong ngay xas keroog ba muy falu man de daanaka àggoon naa ci di campagne lu tax ma campagne moy dama dégg mu wax ne mu jóge fi Touba dem Dakar dal ne man de jóge na ci sama kilifa nee na ma fi ñu nekk di manifester na fi jóge te dem liggéey may leen may leen gaay taccu eh, tàccu leen waa ji tey ko lolo wax te Touba gi la jóge ne sama kilifa nee na ma te defe naa wax ba dégg na sama kilifa nee na ma na bayyi caaxaan yi leen ak seen caaxaan yi te dem wuti daa dugg réew mi wuti sëriñ bi ñaanal ko ba mu am ba mu amee ma defe woon ne li muy njëkke mooy jàppale sëriñ si bu baax tafu ci sëñ seex sëñ seex si di muxtaar ba ñëpp xam ko ci moom ma defe noonu loolu lay def ba mu toogee gaa yi nga xam ne moom lañ sam ci dëkk bii jaar diggam ak sëriñ si xamal tut sëriñ si dara sëriñ bi xamalatu ko dara am na wax fi wax dama leen wax ne Macky Sall na xam ne diggam ak murid gi neexut neexut ndax neex gi moom mooy sa diggante ak sëriñ bi leer rek bu sa diggante ak sëriñ bi leerut sa diggante ak murid gi du neex gaa yi nekk fii nekkal ko fi sëñ Saliou Mbacké yàlla na ko yàlla fayal dama faa dem ne ko Mbacké député yi ñuy fal ci dëkk bii dama bëggoon nga joxe tur yi bul bàyyi kenn di la ko joxeel ñu togal la ci assemblée nationale ba bu ñu fay bëggal loi waté loi bo xam ne loi bu ñu yëkëti seen loxo lang sëñ salim ne tek ba yàgg mu ne ma bërepp bobé dé sama jëm ji nga ma fa doy mu ne bërepp bobé sama jëm ji nga ma fa doy ndax ñi nga wax dé man na leena a waye damay ragal bu mu leen tanni buñ demee ba fofé ñu war ma fa togal ñu fa di ma fa togé ay way dégg leen mu ne damaa ragal ñu war waroon ma faa toogal far di ma fa toogee waaye xam ngeen ne ñii samp fii dañ ko faa toogee ndax xam nga ne ku dëkk fii yaroo fi màgg toog ba ñu nee sa toog di saaga sëriñ ci digg dëkk bii xam nga ne da nga faa toogee sëriñ waaye toogaloo ko fitna jooju nag topp Macky Sall saa bu dikkee lu ñu wax fàttali nañ ko saa bu dikkee nee nañ ko ah lan la waxoon rek ren jii nag mboolem kilifa gu mag gu nekk ci dëkk bi jokkoo nga ak man. ne ma waxal mbooloo mi ne Macky Sall de la ko rawoon ci diggante ak sëriñ si mi ngi koy dab dabaatal ma ne ah, danaa ko wax de fa ma taxawoon doon ko wax de fa laay taxawaate wax ko ko su fekkee ne wér na sax murid yi dañ koy xam ndax nee ni ab sëriñ moom ku ko bëgg a jàppale da koy jàppale ci mu dem liggéeyi gis nga ku yalwaan ak ñaanaatu kenn wër laa jox dara sëriñ buy liggéey nga jàppale ko ci jiw wa jàpp ko jàppale ko ci matériel ba mu bëgg mu ba noppi nga jënd ko loolu la ñuy dimbalee ab sëriñ waaye ab sëriñ ko may deesu ko sarax su demee nag ba gis ne ña ko fi noon nekkal yàqal nañ ko mu wut ñeneen jaar diggam ak sëriñ si bañ déggoo ah nu day murid yi nu sëriñ si rek lañ bëgg ku leen fonk ñu kenn koo fonk kilifa mu fonk kon loolu nangul nan ko ko bu baax ndax ginnaaw ñoom kilifa yi ñoo ko wax wante nag danaa coono li ne ko bi mu góorgóorloo ba mi ngi maslaanteeg sëriñ si ba mel na ni seen digganteeg gi ratax na ci boole donga yi nag donga kat ñoom waxaguñ dara sëriñ si wax loolu waaye donga yi waxaguñ nag kon nak bu gorlo ba digam ak serigne si ratax ba ñeme ko wax na gorlo ba digam ak donga ratax ndax donga yi kat batay ñi ci ciono ba ñi ci bay amuñu jiw ñi ci commerce amuñu dara ñi yor ay atelier amuñu ku leen jappalé Touba gi gis nga ko amu mi ngi lëndëm kërëj fenn fu nek war na fa am ay teli santian yaangi ni amuñu ndox amuñu làmp amuñu dara amuñu yoon yi yépp day mbir yo xamni yi so defee so defee autour ila Touba bu baax lolit nak néna la fi Touba nak mom ci la bokk ndax dañoo wax ne Touba da contre gis nga Touba sëriñ bi amul ku muy contre amul ku muy àndal képp ku baax ci taalibe yi sëriñ bi ànd naag yow sëy blaat dafa waxoon ne bi nga xamante ne xam naa ne yàllaay fay bu fal kul ya allahumma malikal mulki tuti mulka man tasaw wa tansiu mulka man tasaw wa su man tasaw wa tuzillu man tasaw bi yadika innaka ala kulli shay'in qadir neena bima bi ma xamee loolu laa xam ne ginnaaw yàllaa koy fal moom mënuma ci dara waaye am naa fayda ju toll na ku wax ak taalibe yi dimbaleen ma wax ak yow ku waxut ak ñoom ma ma ma war la gannaaw kon Macky noo ngi lay woowaat noo ngi góorgóorloo ba sëriñ si wax loolu góor góorgóorlul ba taalibe yi wax loolu man de am naa fayda ju toll nii ma ko sëriñ si waxee ma waxee la ko noonu su ma ko taalibe yi waxee ma waxee la ko noonu waaye am naa fayda ju toll dem boo ko defut tam fii ma toogoon su ma jësee laa la wax ne la nga doon wax yaa ngi gis ta la waaye doon du ci dëgg noonu de buñ samoon sañoon taalibe am jàmm te taalibe am jàmm nag mooy mu am lu mu def ci poosam man koo yóbbu këram mën a teral njabootam mën a am jàmm nit ñangi faatu ci geej gi de li faatu ci geej gi kenn xamul num tol tay ndaw lañ ta lu leen tax di faatu ci geej gi moy dañu bëgg ngeen jàpp leen ñu tok ci seen kër nday ak seen kër bay am lu ñu liggéeyé tok fa kenn bëggu ta dé ci geej gi waye ñak pexé ndaw lo xamni ne amoo loo def amoo fo jëm amoo ko la jappalé da ngay ag ci dund ak dé nga yamal rek barsak barsa ma barsakarek. rek lool nak ni nga xamni gindeeku nga tay ba gis ni kenn nu contrôle la fi sëriñ si contrôluñ kenn yaa ñëw ba yàgg xamalatuñ la dara sëriñ si toog jàpp seen ak njàmbur te buñ jàppee seen ak njàmbur seen i dong jàpp seen ak njàmbur te ma bëggoon tey la ma la ko waxee woon Cheikh Sidi Muxtaar amul intérêt ci loolu de gis nga bu bëggoon wan la gannaaw daf nuy woo ñëw muy leen bu leen bàyyi leen Macky Sall bu nu ko waxee nun ñëpp lay ba su bëggoon a politique dañuy woo ba ñëw mu ne jàppale leen ko bu ko waxee ñëpp koy def sëñ Blanc waxoon na ko ba mu ko waxee nu def nun ñëpp dem def loolu laa bëgg mu leer nga xam ne ñoom amuñ intérêt boobu kon takkaat leen seen digg classe politique bi na xam ne bu leen bu leen bu leen buleen bu leen jàpp nit ñi otage ñeen fukki liste ak juróom-ñaar xam ngeen ne caaxaat weesuwul loolu ñeen fukki liste ak juróom-ñaar te kat ña nekkoon ca feekat ñoo nekkat fii koo ci dégg muy wax da ngay def ne ku bees la waaye boo ko toppee bëkk démb la yolli koo fee ñëw duggaat fii rek defaat ab liste yëf yaa ngi bëgg a jeex kenn ku ne génn def listam yéen doomu aadama yi nag ubbi leen seen bopp yi nag xam ne kontar ak kontar ak jàpp bu mu leen ci fa gis nga daal ku leen amal njariñ jàpp leen ko ku leen amalul njariñ tànn leen ko ci àll ba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf